grand c'est euh, le groupe Matbay Matbay est Mat Bokum pour le moment il est au 17 e du classement nous, moi suis nous leader c'est nous vainqueur

waa Tmax ñew nañu wa café gi ñew nañu wa bëlët bi ñew nañu ñëpp ñew nañ tay pour jappalé si ko pour jappalé suñu doomu nday Madou ndax Madou luma am rek mérito nako ci yaram ak tegginam ak nangoo liggéeyam jërëjëf sëñ bi merci. merci beaucoup. ah merci beaucoup man je remercie sénégalais yëpp ma ngi lay remercier ñi fi teew ñi fi teewul wax ñëpp ñëpp franchement ça me fait vraiment plaisir donc merci. plusieurs teams de moto gars yi jóge Dakar nga paru yo partout pour te souhaiter la bienvenue encore. franchement c'est la même famille c'est la même famille lii moom je m'attendais pas du tout am lu mel nii li ma am c'est vraiment immense c'est énorme euh, amoon na tur mais sant yàlla yooyu yëpp fàtte naa ko lii sama xol béggee nii fàtte naa jafe-jafe yëpp donc jafe-jafe amatul dañuy wax zéro jafe-jafe contentement Ouais, c'est la première fois c'est la première fois ma def ko donc c'est ma première participation pour Africa Eco Race

pour vous dire vrai wax dëgg yàlla amul dara lu ma si jàppale donc plus ay nit ñoom si jàppale yenn sponsor ak yooyu mais pas si côté nguur bi na moo yónde woon naa courrier ministère euh, des sports mais bon après aw ma si retour aw ma si dara mais bon sant yàlla dem nañ si jàmm dellu si jàmm waaw franchement loolu rek loolu moom doy merci beaucoup c'est vraiment gentil merci à tout le monde c'est vraiment gentil